Assalamu asalaamaaleykum euh, chers euh, téléspectateurs euh, de la Senzoom TV ñu ngi leen di nuyu bu baax amaat Delsi dellusiwaat fii ci seen émission bu mag boobu. ki leen koy présenté di madame Diop fal suñu partenaire boobu. restaurant Darou Xuddoos ñu def ak ñoon liggéey bu ama am solo di leen jaajëfal bu baax a baax tey nag ñu am fii comme invité ci émission taaru jongoma bi ki ñuy wax Pape Ndiaye. Pape Ndiaye nak ñu gën ko xam ci euh, le promoteur en même temps opérateur économique la euh, comité session du marché Ndoumbé Diop aussi euh, vice-président UNACOIS des jeunes tay mom la fi am comme invité dina la ko casquette yi bari na Pape nuy na la di la dalal jamm ci sa émission taru jongoma merci beaucoup madame Diop ñu ngi lay fay di am mbégte lool ci émission bi di ko rafetlu lool machallah ni amna solo maa ngi koy suivre bu baax xana di def rek di di len nuyu di nuyu euh, wa seen euh, sum di jël nuyoo bi diko ko ci loxo sama xarit di bara seen ak personnel ba fa liggéey yëpp di wax daal vraiment maa leen di suivre daal liggéey bi gis naa ko rafet na machallah ah, merci beaucoup pap Ndiaye kon ku ne xam na ko liggéeyam da xam euh, ginnaaw bu ma remercier suñu directeur tey pap Ndiaye ginnaaw bu ma la nuyoo. dalal la ci sa émission taaru jongoma ñu faral di seetlu en général incendie yi euh, ci marché bi rawatina marché Ndoumbé Diop euh, lan moo waral incendie yi bari yi. Ah, merci madame Diop euh, sa question bi dinaa ci tontu te naa ci am mbégte lool nag pour tontu ci ndax dafa doon lu am solo. yaa ngi koy wax léegi sa biir wax ne tey bari na casquette yu ma takk waaye bi mu ci gënal mooy kasketu délégué marché Ndoumbé Diop bi bo mo gëna ñor ndax euh, man dama amulul marché ci marché la euh, foye sama jeunesse bépp ci marché la ko défé euh gaa comme ni nga wax marché bi lak na 3 fois ci lima ma ci jàpp euh, lakk bu mujj bi mi ngi nek 2017 bi passé ci mois de juin bi la lakone lool nak lak bi ko li ko waraloon courant la moy branchement yi nga xamné ni dal daal jaarut yoon lool bi mu amé vraiment Senelec ñëw na def ci ay jéego def nañ ci nag liñ ci war a dox wax dëgg yàlla ba loolu jàpp naa ne euh, bu nu yàlla dimbale dootu fa am ndax euh, branchement clandestin yu yëpp jóg na fa léegi jóg na fa macha allah di ñaan yàlla rek yàlla musal ñu ci sawara euh, ci liy gëj fi daal te bu mu fi amati. na yem foofu mais suñu fekkee ni dañu ñëw ci par rapport ba mu lakkeek léegi def na ak diir. Euh, boobu ba léegi euh, ñoom jaaykat yi nekkoon ci biir ñu génne leen gis nga ni naaj bi day metti ci ñoom bu ñuy jaay alors que amuñu loo xamante ne dina leen mën a couvrir soleil bi muy lu metti te ñoom ñu ngi koy ñaxtu loolu lan moo ciy seen xalaat seen gis-gis par rapport ak euh, ñaxtu bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy ñaxtu te amaguñu place seen place yi ba léegi dellooguñu fa. waaw merci madame Diop loolu metti la nañ ñun ñi nga xam ne yàlla def na ñun ñooy yi. Euh, ndax euh, ma ngi nuyu Modou Gueye Diop mi nga xam mooy délégué général bi man euh, ma ma ma ma ma bokk ak moom liggéey bi en même temps di may délégué secteur bi ma féete bi xew-xew bi amee ba léegi metti na ça fait deux ans et demi bi lakk gi amee ba léegi deux ans et demi ba léegi sànc bi vraiment mi ngi avancé nag ñu ngi am yaakaar ne du yàgg tuuti ñu ñu ñu livré ko seen borom ku ci ne dellu sa place waaye metti na. ndax boo xoolee tey boo jaar ci ruudu njobentaay bi ñu ngi lal ci tali bi jën yi ñu ngi koy lal ci kaw tali bi métti na trop nag waaye nag waaw moo noo métti na boo fa demee sa yaram day daw waaye nan ñaan yàlla rek yàlla def ñu ñu eggale sànce bi soreetut ndax euh, jàpp naa ne balaa mat trois mois dinañ ko dinañ ko livrer seen borom ku ci ne jël fa nga nekkoon euh, te liggéey bi liggéey bi mucc ayib la da ci remercier nag état vraiment ñu ngi remercier état da ci remercier président Macky Sall bi nga xam bi xew-xew bi amee man bokk naa ci ñi mu recevoir palais ak sama équipe mu ne marché Ndoumbé Diop ñun waa INA quoi mu ne marché Ndoumbé Diop maa koy defar maa ko téye sama loxo ndax jàpp euh, Diourbel amul lu marché te loolu ñu waxoon nag ñun ñu ngi koy gis vraiment ndax affaire bi tolloon na ay euh, diggante yoo xam metti woon na ndax dafa tombé woon ak euh, élection 2019 yi xam nga day xaw a doy waar waaye vraiment li ñu waxoon lépp gis nañ ko liggéey mi ngi avancé ñu ngi ciy remercier tamit entrepreneur bi di Cheikh Bara Gueye vraiment am nañ yaakaar ne daal du yàggatu ñu ñu ñu de ñu libéré kanti gi ku ne am sa delluwaat fa nga fa nga nekkoon. waaw cantine yi est-ce que ñoom euh, étage la wala dañ koy def noonu masaale ko comme ni mu nekkee woon. Euh, non du étage nag am na tuuti am na mbaar ci kaw waaye mbaar mi pour bureau délégué la. ak euh, maire yi dana fa am am na am na fa représentant ku mel ni sécurité bi ñetti bureau lañ fa def ak service d'hygiène ñoom lañ fa def pour ay bureau waaye ci ko amul étage quoi am na nag Havana Havana bi ñu ngi ciy liggéey euh, yàggut tuuti ñëw nañ fi directeur HT bi ñëw na ànd ak waa conseil municipal yi bi ñu ñëwee ñu ñu ñu xalaat ci daal ne jàpp na ne Havana bi bu nu yàlla dimbalee daal du yàgg tuuti ñu do boobu nag plan bi ñu woon L plus la am na étage waaye boobu euh, commencé gut en tout cas bii nekk en chantier daal moom moom amul étage yi moom nen la ku ci ne bi nga amoon nen ko delloo moom ku ci ne place bi nga amoon ak table yi nga amoon nen la ko delloo bu soobee yàlla day ëpp waaye du du manqué bu soobee yàlla. jàllee di restaurant Darou Khoudoss euh, ñuy liggéey lu am am solo gis ngeen plat yu succulent la ñuy defar mais kenn du tàkko kànj moom Gaydel coiffure euh, tey moo jaar fii ci kanam gi macha allah maquillage bi yëpp moom la euh, gone ga fa nekk nag defar di xale bu baax. Euh, bu flexible euh, di xadinaar ku bëgg euh, yu flexible yi rek da ngay daal di dem ci Gaydel coiffure voilà ginnaaw bu ñu sante suñu sponsor yooyu nga xam ni feccum liir bu neexee nag day jaatee ca mbaggee te mënuñoo dem saa ñoom ñu ñëwaat nag Pape Ndiaye muy li nga xam ne mooy insécurité bi nga xam ne am na ci marché bi te jamono jii dañu seetlu ne insécurité bi dafa jéggi dayoo ah, par rapport ak Euh, cantine ni ñuy dajji euh, nit ñi ñuy agressé di leen rey loolu lépp euh, nday mbilli gi yëpp di ca marché ba lay juddoo loolu lan nga ci ñu ciy indil en tant que délégué du marché. waaw ah, merci madame Diop di wax rek ne loolu lu ma ñor la question yëpp ñor na waaye boobu bokk na ci bi ma gën a ñor ndax marché nit ki liggéey ba wàcc. jël alalam yëpp bàyyi fi dem tëdd këram xëy si ñëw dajji ay place am loolu vraiment ku ne ne neex na daal euh, xamoo lu xamoo xamoo li ngay wax neexut te 2019 euh, bi ci mois de juin bi toj nañ fa juróom benn place euh, le 20 non le 13 bi passé le 13 janvier duggaat nañ fa tojaat fa juróom-ñetti place loolu lépp insécurité la li ko gën a waral nag euh, mbir li may faral di wax su ma waxee ñu ne da nga contre diw man contre ma kenn li may wax lu ma gëm la te lu ma xam la ndax marché juróom-ñetti bunt la madame Diop marché ba Diop huit porte la sept porte yu mag la ak benn porte bu ndaw muy huit porte tey lii ma la wax tey boo am na ñoo ko doon laaj marché xamuñu marché ñaata porte la ñu ngi dëkk ci dëkk bi kon man miin naa marché bi xam naa marché bi juróom-ñetti bunt la juróom-ñaari bunt yu mag ak benn bu ndaw bi marché bi lakkee euh, mu am porte centrale bi nga xam ne mooy porte Doudou Faye porte bu mag bi toog na un an demi amul porte amul porte ba ma signalé ko dem ci organe presse yi eh, woo leen mel ni mën naa ko tudd sax seen euh, sum bi ñëw na fa ak yeneen organe de presse ma ma wax ci def ci benn sortie bu mag ñu defar porte bi muy port bu mag boobu nekk porte dut fay waaye li gën a li ma gën a metti mooy dañ caa jógee euh, xew-xew yooyu am muy muy euh, cambré yi ñu cambré euh, place jàmbur yi ma leen ko wax leen yeneen porte yi nga xam ne ñu ngi yeneen port yi nekk ci marché bi te baaxut ma signalé leen ko ñu ñu ñu yebal fa benn entrepreneur bi ñu fa yebal entrepreneur boole kook ancien voie euh, boole no euh, non non non non boole kook euh, surveiller marché bi quoi muy Pate Diop man damay tudd tur quoi Pate bi ñu àndee ak délégué bi ak commission bi yëpp ñuy liggéey ci wàllu délégué bi ñu def sunu benn comité bu mag ànd ak ñoom won leen porte yi am problème yëpp biñ leen ko wonee entrepreneur bi bind bind. def devis ñu toog quatre jours ma day ak mom nak fu ngeen tollu mu ne ba ma ko ba paré la ko lem sanni ma ko li ngay wax moy lan mu ne ba ma fa jóge loolu dañ leen dul defar rek loolu nuko nit di waxé té loolu ba mu koy def ba mu koy def ki ko ko def lo moy maire bi nan jox nan nan nan nan teg baaraam moom yi mi jeu la wara ba marché bi da koy foyé day foyé marché bi bo bëggé dégg-dégg ndax tey nii may waxee yow boo demee ci marché ba euh, dama leen fa invité ngeen ñëw xool porte ya fa nekk juróom benn porte ya benn baaxu ci fii gars yi jaar euh, le sept passé le sept janvier bi passé fi sàcc yi jaar ba ba dajji place yi yi porte boobu am na quatre cinq am na six jours yoo xam ne porte bi tëjewut ndax dafa yàqu que côté boobu nekkul côté Ridouane daf man dégg naa ne dañ ko daj. place Ridouane boobu lañ dajee place su Cheikh Gueye place su euh, Serigne Mbacké Ganaar place su euh, euh, place su Baye Modou Diouf su Tafa Gueye sama place su Tante muy Faturé juróom-ñetti place lañ dajee. est-ce que ñooñu dajji yi d'ailleurs xam ngeen ñan lañu. non sàcc yi la insécurité bi la rek am marché bi amul sécurité porte boobu ma la fan jaar porte boobu ñu jaar. porte boobu une semaine yoo xam ne porte bi tëjeewul ndax baaxut ma signalé ko ñëw ci délégué wax ko ko ñëw ci euh, fekk gardien yi moo ñëw wax ma ko ma ne ko demal ci délégué nga wax ko ko yaa ngi dem mu wax ko mu wax ko waa maire yi pour ñëw defar porte bi bu la leen di wax waaye faalewun ñu ñoom daal nan ñëw ak seen recette yóbbu mm, lu nu wax tamit lu nu xëy wax moom duñ respecté li ñuy wax duñ ko respecté duñ respecté li ñuy wax rawatina yow nan nga mën a yebali nit mu ñëw def yi ba pare yaa ngi dégg nga jël loolu ñu naan lépp tàbbi géej quoi bi ma dajee ak waa ji ne koy fu ngeen toll mu ne ma man booba laa ca géej wax ma ne ñii dañoo yabaatee am na loo xam ne dafa rafetul daal. gars yi ñoom ba léegi est-ce que defuñu benn effort pour xam ñan ñooy sàcc si. si ñu ngi def ah, xam nga enquête la nag bi xew-xew bi amee. Hmm, képp koo xamee da euh, daj na sa place police jël si la dem nga police def sa déclaration ñu ñu ñu ñu ñu enquête la woo gardien yi déglu leen li ci des na mom police mi ngi def liggéeyam quoi mi ngi def liggéeyam ndax ku xamul sa sàcc wax dëgg yàlla doo wëri da ngay demee jàpp ko waaye xamuñu ku leen sàcc waaye lépp lépp insécurité bi la rek insécurité bi nag lépp dama ko jël dellowaat ko mairie rek ñoom ñoo deful li ñu war def ah ñoo deful li ñu war ñoo jël marché bi di ko politiquer tey nii tey boo demee marché jël nañ waa feera yëpp dugal ci biir marché bi ne dañuy nettoyer marché bi ndax lan euh, comme président dafa am benn projet bu mu teg na léegi chaque fin de mois samedi bu ca njëkk day nettoyer dañuy nettoyer dëkk bi euh, loolu tax na ñuy profitoo di profitoo jël waa feeraay dugal ci loolu rafet na macha allah rafetlu naa ko waaye nanu bàyyi politique bi daal nanu bàyyi politique bi na bàyyi politique politique dafa ëpp daal dafa politique marché ba mu ëpp lool lool. gis nga nag waxtu bi daal di nañuy xot dañuy tàggatoo rek tàggatoo bu dul tàggatoo euh, mais loolu wax restaurant Daaru Xuddos bi nga xam ni dafa bàyyi ñëpp ñëw ànd ak télé bu am maanaa bi nga xam ne macha allah ay kàngam yu seen xam màcc ci wàll wi lañ mu ñëw signé ak ñun contrat bu rëy rëy nekk suñu partenariat. ak du ko rëccu ndax euh, Baydi Ndiaye xam naa ko suma mag la suma xarit la dañuy waxtaan ci lu bare bare bare bari euh, yal na ko yàlla jàppale. ndax euh, li mu def yombut bu ko ñëpp defoon njaaram dina jëm kanam euh, ndax euh, dafa bi mu tollee ci liggéey dem na liggéey mënoon na ne damay investir Dakar wala fenn ak fenn waaye dafa ñëw gëm boppam mu metti lool nag mu mu investir toog nag gëm boppam yal na ko yàlla jàppale yàlla lafal ko cat ba fi mu bëgg fi kër gi yàlla yóbbu ko fa sore fa sore sore ndax li muy togg neex na njóobeen yi léeg ma gis fi njóobeen yi di fi di fi dugg euh, man nag léeg ma dugg fi waaye yu am solo daal mi fi am moom ndax li gis naa fi léeg-léeg ñu ne léeg-léeg ma am fi cere yu baax a baax wala supp ah te mën na tamit ginaar yu baax a baax en tout cas daal moom ñëw leen kër gaa ngi nii macha allah hmm, jàmbaar la li muy def set na sel na neex na te jar na te loolu rek moom la wax ci resto nag resto moom bu dee sell di set. di jar di neex lu ci des ñëw ñëw leen éléments yi ñëw vraiment équipe bi di équipe bu am solo xale yi jigéen yi ak suma euh, copain boobu gars yi vraiment di ay jàmbaar di bëgg bëgg njaareem ñoom ñëpp bëgg njaareem rawatina di Njaay di ko ñaan yal na ko yàlla jàppale ba euh, suñu borom defal ko tawféex euh, jàppale ko ci restaurant bi ba mu jëm ca kaw Euh, ba mu ba mu jëm ci kaw bu baax a baax a baax a baax li mu lépp li mu ci bëgg seen borom may ko kattanal ko may ko wér ci barke Seydina Mohamed di kontaan ci seen seen sum équipe ña fay liggéey ñëpp rawatina yow mi di nga xam ne ni sama xarit nga yàgg na noo xamante waaye ci lu baax rek laa xam ci yow ak lu rafet ak bëgg sa bopp macha allah lii ngay def nii émission bi dafa dafa dafa wuyu borom macha allah yàlla na yàlla jàppale ci barke Seydina Mohamed kontaan naa lool nag. Euh, ñu ngi jéggulu lépp luñ fi wax nag defar rek moon tax a wax moonu tax moonu tax a jóg ak lu jamal dëkk bi kenam ñu bàyyi euh, tappale yi ñu bàyyi jeu yi te teg lépp ci yoon rek bu ko defee Sénégal jëm kanam njaareem jëm kanam jërëjëf merci beaucoup. voilà merci beaucoup chers euh, téléspectateurs euh, de la Senzoom TV lii lañ leen indiloon ci waxtaan bu am solo bobu, mo sekkoon ko ak suñu xarit di quelque euh, bo xamante ni nii njaareem ñëpp ko fonk ci liggéey bu ama am solo bi nga xam mom lay investir ci dëkk bi Néna leen esprit de créativité dafa am solo ci doomu aadama rawatina Pam Ndiaye promoteur en même temps vice-président UNACOIS des jeunes ñu ne deetawaay mu nekk ki nga xamante ni opérateur économique

gërëm ko bu baax a baax ak euh, secrétaire général euh, Abdou Ndiaye nekk fii ci Daaru Xuddoos kon jaajëfal mbokkee xarit yi euh, am contentement bu rëy rëy rëy di leen jox dig daje à très bientôt ci seen beneen numéro